jërë ngeen jëf bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na ak Baye Djily Père Birahim Ndiaye fii ci wasaare làmb mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax ku ci nekk sa tur ak sa sant di am kontaante ak mbégte di jàkkaarloo ak yéen euh, fii ci wasaare làmb comme niñ leen koy defalee saa su ne waaye wéetuma ci benn yoon maa ngi ci ànd ak sama xarit bi sama papa sama lépp di Père Birahim jaay euh, Père maa ngi lay nuyu. waaw jërëjëf rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli salaamaaleykum wa maa ngi nuyu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan wasaare yëpp di safoo site bi tudd wasaare làmb mm. eh, maa ngi nuyu ñu koy seetaan yëpp ak ñu ko safoo yëpp ak ñu ci abonné mm. waaw di ñaan abonné yi ngeen gën a yokk rek xam ne parce que li sama doom ji daan wax laay répété mooy doole jën ndax Mm-hmm. kon nag loolu dinañu dooleel loolu ñu gën a yokk suñu cawarte mm-hmm. ma di leen nuyu di nuyu Birame Ndaw Ndoye maa ngi koy nuyu ak soxnaam mm-hmm. di nuyu Mbodj di nuyu Fallou Diop di nuyu sama gars yi ak ñoom Issa Diène ci États-Unis ca New Jersey ak ñoom Fagalaat ñoom Bëbë ak ji euh, papaam ji ñuy wax euh, euh, bi yel Fall ak yaayam Sagal Fall maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp ak ñoom saal Salma kon nag di kontaan trop nag di toogaante yow gannaaw boo nuyoo tamit sama caméraman yi Hmm. kaagu Adama Basiru hmm. ak di la nuyu daal di hmm. li ci des nag mu ne comme mun jox li ma ndépp li ci des ma jox la nga àggaleel ma ko rek ñu jox ko àdduna wërngal képp fépp ah. fu waay nekk di eh, di seetaan wasaare làmb père Birahim mu ngi lay nuyu di la sant sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem père tey ñu fas yéene waxtaane ci lenn loo xamante ni ah, ci taarix xamuñu nopp lu wolof naa noppam ak boroom xamuñu ba xam Euh, bu njëkk seen jamono daan na am waaye gis nañ ko léegi ci làmb mu doon mm. loo xamante ni bokkul ci luy defar làmb mm-hmm. parce que wolof def ne ñi bokk teen ñooy laxa sooy goj mm-hmm. waaye nag waxi biir néeg mm-hmm. wala waxi biir kër warul génn ci mbedd mi euh, mu dox ci diggante promoteur u làmb ak mbër gis nañ ko ci mbër yu bari ñoo xamante ni dañuy lekk avance promoteur bi ndaw dem États-Unis toog fa euh, mun nañ ko commencé ci Ramdan ak ki nga xamante ne mooy Fallou Ndiaye lu mel noonu boole na leen ñu gisaat ko ku mel ni Père Gaston ak Gris Bordeaux mhm. ñu dem ba ay wax jib ci ba mbër mi euh, bëgg a delloo avance mhm. loolu yëpp balaa ñuy gën a ñëw ci waxtaan bi diggante mhm. boobu loolu loo ko gisee waaw jërëjëf jëli maa ngi kontaan trop ci question bi euh, parce que làmb am na lu ma ci fekkee am na loo xam ne fekkee uma ko dama ko daan dégg waaye ci ñun li ma fekkee mën naa cee wax ba fi ñu toog nii mooy làmb mbër ak promoteur jëkk ay doomi ndey lañ daan doon ay ay xarit la doon parce que damaa ëmb sa damaa ëmb sa taranga ëmb sama taranga mm-hmm. ku ci nekk dafa amee sa morom taranga mm-hmm. parce que man ngay organiser pour am dara waaye man soo ma organiser wul du am dara mm-hmm. kon ñun ñaar dañoo war a ànd sutura ànd fonkante ànd ànd kóllëre la ñu war a ànd ànd kóllëre nag dafa guddi ni muy guddee mooy mën nañu ko ànd ci àddina nii ba àllaaxira sax ba kenn génn àddina kenn ki jëkk génn àddina mm. kenn ki di ko ñaanal ba kenn ma koy fekki mm. loolu kóllëre gu sax rek koy dindi mm-hmm. waaye bu fekkee alal intérêt rek la ñu dugal suñu diggante bu intérêt ba jeexee rek jeex na moo te loolu dafa bari léegi ci làmb mais ñun loolu amul woon suñu jamono mm-hmm. waaw loolu ñun li ñuy dox xew léegi nii mm. ci weerante beeg kenn fee ak xattante beeg ak jëlaali jàmm tëdd ci parmi tiir dem ñun amul woon Mhm. parce que ñun tukki bi gars yi booy xewal léegi mhm. ñun xamuñu ko woon amul war combat fii nga koy jëlee fii nga koy préparé bëri ko fii parce que fii xanaa xamoon na ñun da nga daan jël avance tey mhm. dimanche jotee nga bëri lundi ngay jël avance bu dimanche jotee nga bëri ah, wala ngeen bëri dimanche combat bi agul ngeen bëri xeex bu metti ñu dimanche jot ngeen àggale combat bi man def naa ko te du ngeen jëlaat beneen avance beneen avance ngay jëlaat dañuy ñiilaat xeex ba ñu hmm. atte ñu laax nga xam ne combat bu metti ba ku ne gaañ hmm. ñu ne combat bi duñ ko annulé fi am ñu joxaat ñu avance hmm. daanga dégg nga la ñu fayaat loolu la ñuy fayaat ñu dimanche yoon ñu àggale ji ko ngeen làbbali ko ñu àbbale ko loolu daan am waaw coloré daal moo doon am ci diggante promoteur ak mbër moo ci daan am léegi nag gis naa ne coloré googu mu ngi deñ parce que alal ji bari na xaalis bari nag weerante bi am waaw looloo tax ñun nag. est que du kon jikko yi moo commencé changer parce que père euh, li nga xamante ni gisoon nañ ko. mu xew démb. Mm-hmm. ba ba ngeen defar làmb. Mm-hmm. ba xale yi tey dernière génération bëgg làmb ba képp koo wax ci làmb rek mu dugg. Mm-hmm. te donte yéen a ko euh, yéen a ko jël defar ko ba mu rafet. ba ba ñëpp bëgg ko te donte ñoom xale yi sax li liñ ci am yéen seen génération amoo leen ko woon. parce que yéen seen génération ci taarix musuma dégg ku ci fayal. quarante million wala quatre vingt millions wala cinquante millions. Mhm. te xale yi ñu ngi koy am ci làmb. Mhm. kon loolu bu ngeen ko ñaawaloon démb. Mhm. ren du mën a rafet. te ba tey euh, njuumte yooyu mu ngi dal ci ñoom seen biir. ñoom xale yi. waaw njuumte yooyu li koy indi mooy. Euh, bu njëkk mbër da daan wax ak moom rek. wala mu wax jox la baayam wala ndeyam wala benn ménager am. ménager ba yow am ngeen ñett rek kay xam. léegi nag da ngay wax ak mbër mooy la xaaral ma laaj sama staff. staf mbooloo la. Adama. waaw Basirou. waaw Kaggu. waaw ma bëgg laaj ñëpp ñëpp nga bëgg leen laaj bëgg laaj. ak ñeneen ñi nga xam ne nekkuñu fi. Mhm. ku ne nga bëgg ko laaj mu jox la xalaatam. Mhm. xalaat bi day daal tasaaroo. Mhm. mais bu njëkk nag ménager bi mbër papaam ak yaayam sax du yëg. kan moo yëg ménager bi doo nga yëg ak mbër mi. dégg nga ak promoteur bi ñoom ñaata ki nga xam ne mooy taxawal combat bi. ñoom rek yéen a yëg ñi xam li keneen du ko xam waaye léegi ñoo ñëpp ñu ci aajo kenn ku ne da nga yóbbu information booy génn rek daal gis say xarit diw de fay na ko nangam kii de kii de fay nañ ko nangam bañ na de nangam nangam affaire bi ne ci ne pauvre mm-hmm. léegi ko su ko defee léegi secret amatu fa jili dëgg àddina secret lu mu mm-hmm. mën a doon nga amu ci rek baaxul parce que yàlla mi nga xam ne moo bind asamaan ak suuf si def guddee ba bëccëg gi secret la ko liggéeyee mm-hmm. te yàlla amul benn doomu aadama boo xam ne bi xam na luy tey jigéen moo gëmoo ëmb doom xam nga jigéen a mën a doom hmm. mën naa la wax ne bi bis tàngam la yàlla liggéey tànk wala bis la liggéey nopp wala bët wala dara lu mu deret lay doon lu mu man yi hmm. ba mu yàgg mu doon deret ba mu yàgg doon leen ba mu fal ba ci gis lu yëngu ci biiram ba mu waree génn mënu ko téye day génn waaw kon secret boobu boobu borom jox na ko kenn xam nga kenn xam kon secret moo baax secret dafa amatul nag ci làmb ji hmm. secret boobu booy wax ak nit léegi nii booy génn états-unis yëg nañ ko a tax nag weerante bi commencé am yooyu yëpp di ci am. Hmm. ñun nag bu njëkk da nga daan gis sax nga xam ne tey tëgg naa làmb tey damay jiri sama mbër la ko ko dox na sama diggante moom tëgg benn làmb pet dimanche ba jot topp wala mu toog ñaar dimanche wala ñëw amul xaalis wala moom problème xaalis mu ne ko wutal ma benn adversaire ma bëri la. mais père bu njëkk seen i jamono. Hmm. promoteur daan na tëgg làmb ba pare am mbër. Ah. parce que léegi euh, boo xoolee Gris Bordeaux hmm. ak euh, ki nga xamante ni mooy père Gaston. Hmm. li waral seen coow li mooy gri Bordeaux jàpp na ni. père Gaston euh, jox na ko avance dix millions. mais dix millions yooyu mu ko jox Aziz njaay moo nekk ci ginnaaw ki nga xamante ni mooy père Gaston. Gris moom loolu la jàpp ba tax mu mu mu mu fas yéene. ba tey delloowul dix millions yi mais nee na du bëreel Gaston da koy delloo xaalisam. combat mhm. ndox diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier mhm. ba Gris Bordeaux ak Pierre Gaston fi mu toll nii ñu ngi jëm ci yoon mhm. est-ce que loolu loolu bokk seen jamono amoon na promoteur tëgg làmb ba pare wut fu mu far wala loolu bokk na ci li yàqal mbër mais far waa waa ji waa la hmm. bu fës bu fës la fi nekk dëgg la waaye boo romboon ñaari xale feex wala ñaari ginaar di xeex gu xeex gu ñuul sax di nga xam boo sañoon xeex gi ku xonq yi gañe ku ñuul gii wala ku ñuul gañe ko weex ñëpp la waaye fésal ko nag ak ñàkk ko fésal ay am mm-hmm. Balla Gaye fésal na ma ne ne ah, ah, Aziz Ndiaye mm-hmm. mooy sama lépp mooy sama baay mooy sama lépp mm-hmm. dégg nga mais loolu man su ma doon su doon su doon tey jii euh, man laa maay euh, euh, Gris Bordeaux du ma yëgal loolu sama yaram xam nga loolu sama yaram. ñu fay ma cachet bu ko jar. cachet boo xam ne kurpeñe man la xaalis bi man la. ma jël sama cachet dem bëri ji. parce que ci géew ba Aziz Ndiaye dafa dugg di jàpp sama tànk wala di këlëmal samay bët wala boog di téye samay tànk wala wala ngay songo fay mu song fii amul loolu mm-hmm. loolu amul ci làmb mm-hmm. dégg li ma la mm-hmm. man di caaseen bi day gëm boppam te Gris Bordeaux war naa gëm ne moom ci boppam bu ñu àndoon moom Balla Gaye ci mbedd mii ñoom ñaar rekk ci benn bayal gi Balla Balla Gaye wuta na a nangu lu ci poosam dëgg la kon kay lu may xalaat du ma xalaat du ma xalaat kenn man li may xalaat bi te dañoo bëri bu njëkk mu mu metti mu doon combat boo xamante ne combat bu metti metti am metti sax damay jël damay jël avance xeex am bëri am lépp damay jël avance bi ànd ak sama bokk préparé sama combat du ma calculer Aziz Ndiaye du ma calculer kenn xam nga lu may calculer hmm. liñ ma fay ak tey bu bis baa ma bëgg a ndam loolu laa teg sama kanam hmm. te Gris Bordeaux kat boo ko xoolee xam ne fii ne ku ko mën daa bon mu baal ma ci wax bi hmm. fii ne man ko mën nga koo gañe waaye tekkiwul ne maa mën Gris bu jàngoo def la mu war a def neexu la man parce que bu dee kàttan am na ko bu dee bëri am na ci am na lu ci man mhm. am déet dëgg la damay xool te may fay rek man du ma lijjanti yooyu doolu liñ bu doon man laa wax de mhm. yéen ñi si daan dama de sool man du ma ku mu faral ak ku mu faral ak ku ma contre déedéet parce que képp ku mu ci bëreel tey jii am na ko faral kooku mais père est-ce que Gris juumul ci bi mu naan euh, Gaston dama koy delloo li nga xamante ne mooy xaalis bi ma joxoon waaw euh, nga wax ko ba pare ne du ma ko bëreel waaw génn ci sorti def ko wax ko mooy comme sorti bi mu def ci la 2STV yi nga gis Gris wax loolu ba mu ko waxee ba tey pour man bi mu ko waxee leen lundi mardi wala jeudi waroon na fekk mu delloo xaalis bi Père Gasson delloowu ko ba fi mu toll mu ngi waaj dem ci yoon est-ce que loolu njuumte amul ci ci Gris ak écurie bu mel ni écurie Fass mbër mu am staff nekk fa def erreur bu mel noonu waaw erreur bi xam nga doomu aadama du mat hmm. mën naa def erreur hmm. mën naa juum mën naa juum waaye juum gi mooy hmm. ni kilifa dañ day am kilifa kilifa gi mooy. Hmm. maa ngi yëngu ci dara am naa staff am naa ñoo xam ne ñoo ma encadré. Hmm. bala may wax ci ñoom day may wax ak ñoom damay diisoo ak ñoom bala may jël avance damay diisoo ak ñoom lu may def ba ci écrit bala maa dara ma koy bu ma amee sama soxla yi bopp nag hmm. mën naa ko doxal sama bopp. waaye li nga xam ne moo jëm ci écrit bi nag jëm ci nga xam ne ñoo ko andi ko def maa ngi mbooloo ñooy andi ko def ka ci njiit la damay jox waxtaan ak yow. ah lu ñuy def na ko kilifa ka ka jiite fekk. Abbas nga fa keneen a nga fa keneen a nga fa keneen a nga fa ma toog wax leen réunion ñu toog taa waxtaan ñu toog waxtaan ba xam fan lañ ko tegloo tànkam hmm. fu ñu ko tegloo tànkam bu ko doyee mu def loolu su ko doyul mooy leen déet loolu doy mama nii mama doy ñu hmm. waxtaan ci ba jubóo mu door a génn waaye génn te ñooñu yëguñu ko dara tamit man loolu erreur pour man hmm. waaye promoteur tamit man du ne kii du ma ko bëreel du ma man xam ko dul bëreel ku ma fayul man ki may bëggeel mooy képp ko indi xaalisam fay ma lu ma jaral ak koo ma mën a indi adversaire boo ma mën a indi laa wax te mu mu jaral ma bu boobaa combat bi ci jàng ci yow la yàggee. waaw père man li ma jaaxal mooy. Ah. yow hmm? mën ngaa nekk mbër. man ma nekk mbër. Ah. nga yor sa xaalis. Hmm. bëgg a tëgg combat bi war nga maa mën a woo fay ma. Ah. ñu xam ne avance bi père Birahim Ndiaye laa war a bëreel moom moo ma ko jox. te jël naa ko damay bëri moom parce que père Birahim daf maa fay pour ñu bëri. mais loolu est-ce que du bokk ci caaginu euh, bëgg a ragal nit ki wala bëgg a nit ki est du ci am non c' est que organisation bi écrit moo demeetul noonu. Mhm. kon kay jariñu am naan kii mooy sama sama sama agent. Mhm. wala kii mooy sama manager wala bu fekkee ne yow mbëri mooy yaay waxaale sa bopp dem bëri sa jël sa avance su bopp kon. Mhm. kon kay jaratul kon kay staff manager amatul fa njëriñ. dégg kon kay bul ne kii mooy président écrit bi. bul ne kii mooy sama njiit wala kii mooy sama entraîneur. ànd ak nit may bopp rocc laa bopp nga ànd ak nit ba pare te xamul la dara. kooku ànd bi amul njëriñ. kon kay léegi yow ne doonal sa manager bopp doon sa lépp. sa lépp dama ne àndu béjjén baaxul àndu bépp béjjén nag baaxul hmm. ñaar dañuy bokk benn bopp te duñu laalante loolu c'est hmm. dangereux ci nit hmm. bu fekkee da ngaa nekk ci écrit looy def waa écrit bi waxtaan leen parce que tàggu ko dul tere yomb naa booy tàggoo tàggu ko dul tere ku la dul tere tàggu ku la dul tere yomb na yomb na trop man boo damay jël combat bi jëlal na la coupé yow la xaalis bi yow la damay dajale gars yi toog ne diw ma jox nangam naan boo woowee président écrit bi ak sa entraîneur sa coach ngeen toog waxtaan ak ak promoteur bi. Hmm. yéen ñëpp ngeen toog waxtaan. ne ko man nangam ak nangam laa bëggee lu ngeen ci xam naa nga ñu wax suñ la waxee loolu arrangé jëlal suñ la waxee loolu arrangé bul jël. loolu rek am de hmm. moo sa kër ñëw am ci lépp nag. Hmm. waaye bu fekkee da làqu def say fi bopp nag ba coow am bu coow la ñu indi ko gàddaa yow. yëm ñëw nga jël say koppar ni xuma moom ànd ak moom def rek fële fële hmm. ah en tout cas bu ci coow amee rek di nga si coow parce que ba ngay def kenn yëgul ba ngay tàggu yëguloo kenn hmm. waaye boo yëgalee nit a ko waxtaanee waaye loo xam ne waxtaane wu leen ko yow rek yaa ko waxtaane ak seen sa waxtaanu bopp laala booba kat bu bu coow amee yow la de hmm. man loolu laa gis dëgg kon kay bu fekkee dañuy tëb rek doo doxal sa bopp écrit yéeg yooyu bu yeboo tas bu yeboo tas. waaw jaratul agent jaratul entraîneur am na solo am na euh, mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci première partie jàngat làmb bàyyi jiile père Birahim Ndiaye euh, deuxième partie bi dinañ fi ñëw léegi indi leen combat boo xamante ni combat bu neex la doon ñaari ndaanaan doon ñaari champion léegi père décortiquer combat bi ñu gën cee mën a waxtaan ba ci kanam tuuti ñu ñëwaat ci deuxième partie bi jërëjëf ndaanaan laa ñaari yoon bol boo jaar booba laa mëne boo jaar Fafana mëne dama mën ci bii mën ca mën ci ak ci yële yi boor nu roowu maag ñoom cuuna rëy ma waa na roy maa ko baaxi ñii ma